Euh, ñu ngi koy naqarlu bu baax parce que euh, lii li tax jàllut ñun tamit lottu nañ ci xam ko parce que euh, député yi waxuñoo ak ñun ñoom it seen xalaati bopp leen jëfee si suñ gis-gis ne seen xalaati bopp leen jëfee pour dàq constitution bi bu fekkoon ne bàyyi woon nañ ko mu jàll xëj na buñ ñu ci gënee ee ñun wala tamit waroon nañoo mën a ñëw ñu waxtaan ak ñun wax ñu ne ñu lii moo ci bon wala léeg ci bon pour ñu ñu mën a xam. lu bëri ci constitution bi waaye defe naa ne loolu lu bëri amut ñu bëri tamit eewuñ ci lu tax ñu ñu ñu ñu sànni constitution bi moo tax ñu ngeen naqarul loolu bu baax